lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat suux suux ko ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe billahi samil alim min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa mbokk yi nga xam ne yéen a ànd ak ñun seen télévision Mouslih TV tey ñu ngi ñëw ak yéen ci seen fenêtre bii di xef xippi ñu bëgg a waxtaanee leen lu aaju ci sunu diine te fi ñuy njëkkee fala la ñuy mujjee muy xew-xew woo xam ne gàcceel na jullit ñu bare bare bare bare bare rawatina ñi nga xam ne ñu ngi yëkkati woon seen kàddu di def ay sitting di def ay point de presse di joxoñ baaraam président jullit ñi di joxoñ baaraam kilifa diine yi di joxañ baaraam organisme international yi muy droit de l'homme yeeg organisme yi nga xam ne dañuy xeex àq ak yelleefu xale ak àq ak yelleefu jigéen mooy bi ñu jógee di wax naan lii xew fële ca Nouvelle-Zélande muy ñaawteef boo xam ne metti na képp kuy jullit képp ku yég yëg bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ci yow loolu metti na la ñu koy jooy di ko naqarlu di ko reeteet jamono boobu la ay jullit mbokk yi déglu leen ma bu baax ay jullit fekk ay jullit rey ci ñoom téeméer ak juróom fukk ak lu teg yaa ngi naan loolu nu mu mën a nekkee wallahi nu mu mën a nekkee la ñuy laaj fi mu toll nii ñi nga xam ne ñi ngi doon ne cell ñooñu fi mu toll nii am nañu lu ñuy wax xoolal rek jullit di wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah yow nga ne jullit nga nga koy faat te ñoo ñu def loolu nee nañu alxuraan lañu bëgg mu àtte Mali nee nañu sunna yonent bi lañu bëgg ñu jëfee ko fa nee nañu dañu bëgg tubaab yi nga xam ne dañuy jàpp dañuy def jaam lañu bëgg ñu jóge fa defe naa jàpp def jaam metti na waaye moo gën a sedd fekk sa moroomu jullit di ko faat te wa maa kaana li muminin an yaqtula muminan illa qataa yàlla moo ko wax ci alquranul karim ci suratu nisaa yi yàlla nee du daggan yàlla nee na yellul yàlla nena du dagan du yella du yella ba mukk ba jullit di faat moroomu jullitam ndare tooñ ko ndare bokkuñu xeet ndare bokkuñu waaso ndare bokkuñu gis-gisu diine nee du yàlla mukk yàlla daal nee na jullit bu reyee jullit rek dafa fekk mu juum erreur la dawal na oto fil ko wala ñuy foo lu mel ni arm mu daldi koy dal wala xeetu accident yooyu yàlla nee na noonu rek la jullit di reyee moroomu jullitam par accident rek waaye ñii nga xam ne nañ nañu ay jullit lañu jàppee seen bopp ne xeet yu ñu nekk moo gën xeet bi weneen wi nga xam ne moom lañu ñu rey ñooñu dañu am problème comprendre lan mooy l'islam l'islam nit du gënee nit ci xeet nit du gënee nit ci deret nit du gënee nit ci sant nit du gëna nit ci xeetu couleur nit du gënee nit ci ay compte banque nit du gënee nit ci taar wala juddu nit ni muy gënee moroomum nitam mooy ragal yàlla yéen ñi def loolu yéen yéen nee ngeen jullit ngeen yéen xam nga ne lislaam fàtt na leen yéen a ngi dox waaye ay médd ngeen jëf ju ñaaw ji nga xam ne def ngeen ko ba adduna bi yëpp ne yéen ñu doon wax nan kii def lii ci Nouvelle-Zélande cinquante personne la rey ngeen di ŋal-ŋali seen làmmiñ yi fu ne xanaa tey dañu war a wax ba gal xanaa tey tey laa wax lii ba kañ kon imaam yi am nañu problème bu rëy rëy ci kanamu yàlla kilifa diine yi am nañu problème bu rëy ca kanamu yàlla ñi nga xam ne ñoo yor association yi wala ñoo yor ONG yi war a jàngal nit ñi ba ñu xam ne nit doo ko gënee ci mbooloo mi nga bokk am nañ problème bu rëy est-ce que du ñooñu ñoo leen wax ne yéen a gën ñee laaj bu ñuy samp la yow li nga yor jàpp ne moo gën keneen li mu yor jàpp ne moo gën kañ la xam ki yor la gën mooy ca kanamu yàlla. kon li ñu war mooy fa firru ila allah ñun ñëpp dañu war a njëkkante jëm ci yàlla te njëkkante gëm ci yàlla mooy kenn ku nekk ak ut ngërmande yàlla sunu borom subhanahu wa taala te ngërmande yàlla mënuñu ko am di faat ay doomu aadama ngërmande yàlla mënuñu ko am di xeet aw xeet ngërmande yàlla mënuñu ko am di jaarale l'islam wi foo xam ne du lis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo la wax jaarale ko foofu kon nañu taxawaat seetlu xam ne ñun nañu bàyyi yéeféer yi nañu bàyyi ñu dul jullit nañu bàyyi ñee ñépp nañu wax ak suñu bopp mooy ñun ñun ñooy ñan question boobu moom la ñu war a ràcce ñi leen jox dig daje beneen yoon seen mbokk Sayed Diallo Medina ñu leen di jaajëfal bu baax ci abonné yi ngeen di abonné ci chaîne bi ak di partager li nga xam ne moom mooy vidéo bi di leen dox dig daje beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. lislaamaa ngi jooy ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux suux jugleen suuxat ko ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yooneen sa soppe